ni liggéey bu day ni tabax bu day ni ba mu ko defaree ba àggal buñ ko contrôlé wul tabax bi du fi ne mu bind yóor waaw yóor fexe ba boo làmbee pet boo ñamee mu saf te yépp mu def ko wut nag lu leen féete kaw ñoom ñépp nag mooy yëg gi yëg goo xam ne xam nga ni ëpp na yëg te mooy sa diggante ak moom waaw liy yëg liy yëg yàlla ci nit ëpp na xel bis bu ne ma wax ah xam naa moo sax suñu daara ji ci Tiwaawan nga xam ni lu nekk rek dafay fay gis ñoom toog benn bés ci daara ji di jàng rek benn way ñëw taxaw ñu ni ko loo doon dox mu ne man yonent la